li ci yenn kaay yi. li ci yenn kaay yi. Astou dikkati naa ci yéene kaay ma noppi te digloo xel Sud Quotidien ak L'As mi xëyee commission nationale de recensement de vote tey jii lay résultat yi tukkee ci vote yi xewoon keroog ndax kenn nooyeetu ci réew mi ñoom ñëpp a ngi na ñoog di xaar résultat L'As yéene ak Sud Quotidien xëy tegal ñu ko ci seen xët wu njëkk yëral réew mi Quotidien mel ni ku koy feelu naan ko ndax yàlla tey la lépp di leer enfin jour de vérité ca jamono joojee tukkee na a di wax premier ministre bu Sénégal di Mahammed Boun Abdallah Dionne mu préparé installation moom Macky dem bay xuus ci programme gouvernement bi ci juróomi at yii di ñëw loolee di wane ne moom Macky def na xelam ci na day faluwaat mu waxaat ci soleil national ne rafetlu na nit ñu mat gi ñu am ba wata ci ci jàmm ak salaam le quotidien mel ni naa ko ndax jàmm joojee dina yàgg ndax man Sonko ak Idrissa Seck ñi ngi teg pression gaañ ndax Macky Sall bu tegee mbiri ci yoon deuxième tour mënul ñàkk mënut a gagné premier tour bi moo tax Ousmane Sonko ak Idrissa Seck def mobilisation ngir ñu dem deuxième tour yéenekaay bi nañu jigéen ñi fara ci opposition bi ñoom tàmbali nañu ko démb gàddu seeni bool ak seeni paan ak dem daje ca wedayeen ba ndawi Sonko it mel ni ñu naan leen doo leen ñu ko dàq ndax bu ñu leen waxee lu ñu bëggut a dégg kenn du dégg gendarme ya tas nañ seen yaram am na juróom-ñeent ci ñoom ñoo xam ne jàpp nañu leen ba yóbbu leen gendarmerie l'observateur nañu am na juróom-ñaari nit yu bokk ci idi 2019 yoo xam ne teg nañu leen loxo coordonnateur APR bu Géejawaay di Aliou Sall l'observateur nee nañu am ndaje la woote Géejawaay doon sant gërëm askanu Géejawaay taxawaay bi ñu am ci président Macky Sall doon fa yëkkat tamit ay kàddu jéggalu ci yoonu mu teg Serigne ndax kii di président Macky Sall këri diine gu mu dem am na fa taxawaay bu rafet ñu jeexalee ko ak ñaaña génn àdduna démb yërëma suddu quotidien muy ñaari zu Mariane Siva Diop ak El Hadji Sambay ñu gën koo xam ci njool doonoonu photographe ci groupe Futurs Médias l'observateur joo ñaar ñoo ñuy génn àdduna ci ak njabootam